waaw euh, président nag yàgg na jox bopp Sédhiou ni mu joxee ni mu joxee bopp région Sénégal yëpp ndax ñëpp gis nañ ni saa ñu demee euh, conseil des ministres décentralisé dañ koy jiitale surtout les dernières fois dañ koy euh, conseil présidentiel bi mooy jiitu nga xamante ne on passe en revue tous les engagements qui avaient été pris mu jëlaloon boppam xool fan lañ ci toll mën a euh, projeté wu parce que euh, nous sommes dans une dynamique d'amélioration continue et bien entendu wax nga ko euh, engagement yi ñu fi jëloon à Sédhiou c'était 200 milliards tey ñu jël 400 milliards mais mu nekk it 400 milliards bi nga xamante ne bu ko waxee ñëpp a koy gëm ndax 200 milliards yi ni ko euh, représentant imam yi waxee 200 milliards yu ñu gis la ku xam Sédhiou avant gis Sédhiou tey ni mu mel xam ni président de la République changé na euh, xar kanamu Sédhiou te euh, li ci topp it mooy dàqati. Mhm. voilà nga nekk maire Niaguis suma juumul mu nekk ci région sud bu Sénégal Sédhiou bokku ci tey ji quelle est la vision du président de la République surtout euh, la région du sud. bon vision bi déjà dafa tàmbale ci désenclavement balaa désenclavement sax jàmm ko jiitu ndax loolu la ñëpp salué tey. Euh, ce retour à la paix et puis aussi le désenclavement ndax ku se Sédhiou daan dem Dakar foog naa ni problème yi ki am ñaa gis di dem Dakar la doon am moo c'est la même chose donc ñu saluer euh, pont wu Gambie bi saluer aussi pont wu Marsassoum tey population ju ñëw ak euh, requêtu euh, pour pour Temento waaye balaa ñu ko wax sax président de la République ci boppam moo jël engagement bi ba wax euh, monsieur le ministre Bala Moussa Daffé ne ñaan na yàlla ñoom ñaar ñu ànd inauguré ko mooy loolu dafa nekk li nga xamante ne liggéey bi dina gaaw ba ñu ko mun a inauguré très rapidement donc c'est pour dire que c'est dans cette perspective wax nañ ko fii moom daf fi ñëw en tant qu'ingénieur donc ñun xëy na xam ci problème bi ba war koo mën a porter fekk moom anticiper na ko ba pare et loolu dañ ko koy waxal fii Sédhiou mën ko ko waxal Ziguinchor waxal ko ko Matam waxal ko ko Kédougou waxal ko ko Tamba ndax loolu mooy président de la République il a le Sénégal au cœur kat la boolewul dara ak wax te euh, je pense que population bi gis nañ ko te ñëpp mën nañ ko ko seedeel